aca arbitre sifflé na combat bu Boury fii ci Diofior gannaaw bañ jógee fële ca Fimela ndeysaan topp événement lamb yi le pour satisfaire internet yi satisfaire amateur lamb bu Boury à droite waa ji muy bëre xaw ma ni Doroka ne wata sena wali buka bugamin disor de xañaru ande ferero na bunda ngande sandi ko bega diko siar di bega wati tim bayang lim yep ya na buka bugay te wax yasike jamta utew na yana yasik dan na buka saya hey kodi na bunda ngande Seyna Kunduuru Ali Buga Bindisoor Kañaanu Ande Beera Roge Debe Laa ilaaha illallaah Def daan na ko doole taxul jàmm Vite fait, bien fait